voilà asalaamaaleykum mbokki internet yi asalaamaaleykum yow mi safo di seetaan jere jere TV sa suné ne ah, la ñun defuñu li nga xamante ne musique cassette jere jere TV mi nga li nga xamante mi ci culture mi ci sport mi ngi machallah ci musique waye mi ngi ci li nga xamante nak nag mooy ah lekk solo tamit mi ngi ci mi ngi ci mode mi ngi ci lépp présentement je suis ici à Kër massa ah, bu ma ñëwee Kër Massar nag dama fessé ci si ñi nga xamante moy wa festival des pains festival des pains nak ñu ngi ñu ngi ñu ci lépp.

yu baax yee je pense que yi nga xamante ne moo nekk à ma gauche ah, ay ginaar yu ñu lakk la bien rôti yi macha allah mariné nañ ko ba mu baax lakk ko festival des pains daal mi ngi nii lépp loo xamante ne ay xeetu baax baax la. sëñ bi noo def. yaa ngi lakk de. tur bi la. Sidi. waaw Sidi festival euh, des pains fii nga xamante ne ñoo ngi fii nga xamante ne mooy Kër Massar euh, d'habitude seen heure d'ouverture de heure fermeture bi partie bi nga xamante ne mooy débiteri bi nan la. parti bi nga xam ne débuté ah de buñ ko commencé yàggul mais esa ñu ngi ci sant yàlla bu baax parce que. kañ ngeen di commencé. ñun 5 heures. 17 heures. ba ban heure ngeen fi. 3 heures du ma ah. 3 heures du matin. waaw. Ah, am na ñoo xam te mënuñu ñëw dañuy mën nañ def euh, di commander en ligne ngeen leen di livrer non. mën na nekk am na ay livreur am na gars yi boo bi. cag-cag yaa ngi fi gis nga. oto yi gaari fi ak moom la. boo wootee rek gars yi jox la contact bi après boo indi la sa commande foo a nekk fii ba Thiès gars yi waaw gars yi ñu ngi ci Mbour ah.

lépp lañuy def. ñu ngi ba tey fi nga xamante ne mooy festival des pains fii ma taxaw nag mooy accueil bi te boo fi ñëwee rek sa xel dafay dal ndax tarkalla macha allah maa ngi fiy fekk ay xitu baax-baax yu neex fii nag may partie fast food bi mais damay bàyyi ki nga xamante ne moo laa fekk mu présenté boppam wax ñu côté fast food bi lan la ñuy def soxna si noo de. maa ngi fi rek. noo tudd. man Dieyna laa tudd. Dieyna festival des pains fi nga xamante ne mooy partie fast food bi lan ak lan la ñuy def. fii am na hamburger pizza shawarma norvégienne rafsteak chandise lépp loo bëgg rek am na fii ci suuf ne voilà ngañ on ah, ba tey ñoo ngi fi nga xamante ne mooy festival des pains sànq damay woon ci bunt bi mais fi ñu toll nii damaa xuus jàll maa ngi ci digg kër gi mais kër nag boo ci duggee da ngay nuyoo te buñ la dalalee da ngay daal di yéeg duma def lu dul nuyu ñi nga xamante ne ñoom laa fekk ci bunt bi bàyyi ñaan leen ñu dala moom ma daal di yéeg ci kaw asalaamaaleykum akay maaleykum salaam yow miy wax

Oui, dañuy defar loolu tamit ak anniversaire mariage et tout. Vous avez fait def livraison. oui on fait livraison. ki nga savez mi ngi lay vous a mënu numéro 77 991 56 36 77 976 62.

yeneng ci jamm si tuddu fat saw euh Fatou festival des pains la ngeen fi def lu lo xamanteni nit ñi gën nañ ko euh, bëgg. a ah, liñ fi def mo bëri na te nit ñi bëgg nañ ko apprécier nañ ko ndax chaque jour rek mbolo me ngi ñew tamit dañuy sante yalla parce que liggéey bi mo rafet af lek yi neexna pain bi neexna xoso bo fi duggé da sa xol may sedd vraiment waaw. ok bëggoon nañ xam biya bi ku fi ñew da ngay fay biya am droit consommer wala lépp lepp à part. da ngay am biya da ngay consommer d'accord.

gis nga fauteuil royal lay doon xam nga mën nga fi nekk intimité kenn du la gis kenn du la xàmmee yaa xam ki nga doon ah. mën naa toog ñam xool <laughs> yéen a ngi may fuyloo nag gis nga <laughs> pare ma gis nga fii ñu ne espace anniversaire bi la bu fekkee na ngay def anniversaire def su diini yaa xam la nga bëgg a féete ngay defal surprise sa doom sa jëkkër sa mag sa rakk sa jabar fii bu fi ñëw ñoo la koy décorer lépp ñu boole ko ci li nga xamante ne mooy euh, menu bi